ala futuo kulia futuo bunya fema fitiati fonkol sa fema isisa baña jagati bul ko dorde saga yomi jekorom okay. comme ni ma leen ko waxe woon Ngaye FM c'est écouté partout à travers bon l'application ñep koy déglu ba ay Kolda sor ñep télécharge nañ euh, application dañ koy déglu ok for real for ever acca ñu dem kaa ñi dem ba fu mu yem yàlla moo ñi bolé ku le nopp lañ xamul di dox ci ku le leen ko ku jappulé mais gis naa gis naa que ni gis naa que ni neex ñaa ay Arsenal la fa indi ay Arsenal la fa indi sank mu muy dogu ci euh, benn sac la yoroon mais gis naa li mu génne si bi xaw nak nag lu mu yor fi ni ci kanam tuuti nañ xam lan lañu ñuy ak ñu dem di bëggee di bëggee képp nga xam ne instant bi yaa ngi déglu couleur urbaine ak euh, Mamel Teuf Connection ba tey ñu wëy euh, suñu programme ci couleur urbaine actuellement fait 15 euh, heures 15 heures ba 35 minutes ok noonu lay demee ba tey ñu wéy ñu déglu couleur urbaine ak ci ñu dem. mi sama soxna maa ngi lay yedd te yal sa jëkkër ñaari loxo dina baax bu amee bu amul yàlla mooy maye na xam ni benn bés dina baax ok noonu lay demee comme ni mu leen ko waxee woon Neex Ñaa moo nekk sama invité euh, ci couleur urbaine euh, dama leen di euh, dalal comme nu mu leen ko waxe woon xam naa indil na leen ay conteneur bagage ay conteneur bëggee comme que mooy Neex Ñaa je crois que kon tey ni ñu koy waxee war naa neexa ah, war naa am cafka ah, ok noonu lay demee léegi damay bàyyi El Hadj Ba mu ubbi seen euh, micro euh, tamit ñu xool ñoom lan la ñuy indil euh, ci couleur urbaine. waaw ah, kon ñu nuyu auditeurs yi rek di leen siyaar yéen ñëpp. Mm-hmm. di leen wax ni neex ña nga ngi nii ci rajo Ngaye FM 93 point 5. Mm-hmm. waaw. min kulli minaati minal candidat. eh waa Ngaye ngeen gan mag. min kulli auditrice neex ña ngi nii toog. kulli minaati minan candidat ey sëriñ neex ñang borom kiraama yaa ngi nii min kulli minaati ki nga xam ni moo jàngal sëriñ bàcci commerce ak sëriñ buub képp koy gis ci pekes ay waay minal jannaati minal candidat sëñ neex a ngi nii moo naan yàgg fi mu ni yàgg di def ay kéemtaan mm, mm, mm, taxaam yàgg ji nay leer ci auditeurs yi ndax boo nee yàgg rek dañ def def nga dara fi nga toog ci ay kiram señ bi maangi ngi tuub mhm. kon nay leer min kulli min janaati min al candidat suuf sa nga xam ni ñépp nangu na ni kenn mënu koo bay muy suufus bene yàgg na koo laaj président mi ngi nii kay taxaw foofu tuuti président dix ans ci ren maa ngi koy laaj ngir wane samay kiraama ci suuf soosu nga xam ni ñépp nangu na ni suuf soosu moom nangu jibam sax ngir ma gañ fa kom-kom jox ko Sénégal ngir wane samay kirama min kulli min janaati di min candidat ey serigne neex ñanga ngi ni ki jël commune bu pekes daal ko jox monsieur le maire djibo mbay waaw kay monsieur le maire djibo mbay momu kérok bi nga xamni jox na mission bam jéxal bu ñëwé soxla réew dañ ni ko kenn rek mo la ko fi mëna jox muy serigne neex ñang kérok bi mu daago ba ci man la ni ko dina la fal inshallah dajé ak mom and ak mom mom sama li tay and ak mom ba fal ko kulimina di minal candidat ba ci kiramay serigne neex ki mo jangal Baye commerce ok kay Baye ngeen deg Pekes muy commerce keroog bima ko jangal commerce moom euh, daa dëgëroon lol lool kenn mënta wax ba deg bo wéccé rek day day jaxase wéccat wi léeg-léeg ma daaj ko wong mu dugg ci ron comptoir bi ganj genn tim tim man ko bo xamul wéccé daa la fat min jannati min al candidat hey señ neexa borom kilamay motax moo Baye sal ndaw ak kep kuy liggéey lu melni mom ca Pekes kum xool saw fooy mu daal di pare. Kilimina di minal kandida. ey sëñ neex a ngi nii borom kiraama yi bu leen ko laajte fii ci Ngaye FM. ey min kilimina di minal kandida. ey sëñ neex ngi nii ki nga xam ni képp ku daggus ndima rek moom moo tax. ah taxal foofu ku lu tëyër bu ne pekkees ba ca xale yu ndaw ñëpp sama loxo leen jaar As job Góore Yaali Mbay sëñ Modou eh, Thiès FM. ñooñu ñëpp ba ci caam eh, bambaadu ba bàyyuma kenn ba ci góor a tureeg ñëpp maa leen jàngal téer moom ba ci gone yi kulli min al jannaati min al kandidaa éey sëñ neexal ngi nii toog bu doon ko werante baa jooy bul jooy bul jooy bul jooy baa jooy doxalal kulli min jannaati min al kandidaa éey <laughs> waa ngaay diglu leen ma si neex lim leen indil tey tey lu rëy la julli min jadaali min al candidat ma ne ma ne nga bàyyi jooy maanaam tey euh, bépp kiraama rek boo xam ni yaakaarul ni dama koy faj fii dama koy faj julli min jadaali min al candidat sëriñ neexa ngi nii day faj xureet ba buy métti biir buy daw jàngoree kajoor ndoxum siti ba ci xetu gémmiñ guy génn ci mbàq da koy faj ah ndonga de manam yooyu sax jurul ngay koy wax waa auditeurs yi ndax day xatar radio bi damay bañ ñu ñew fi duma leen a recevoir leneen problème di am wa doxal julli min janaadi minal gadida ey mani dani yam ak yeen fi ba benen yoon ndax kiraamay señ neex xajul fi waaw bu ko defé man sama histoire na ci ñew ci kanam ndax eh, Top Corruption mi de day kenn ko xam day saawaay mënuma koo bañ a bégee waaw keroog bi ma koy partage di gars yi dañ ma xam naa Top Person bu baax damay dégg turam waaye miinu ma ko woon ma ne leen nag kooku moo waral mbaboor mi waaw kon Top Person mi doxal ma wax ci moom tuuti kulli min jannaati min al candidat ey dije sëñ neex nee na balaa heure bii déwé na mu def rajo bi télé dafa leeral loolu moom bamay ñew la ko fas kitabu naa ko kulli min min al kanida ah kon señ neexa ngi ni du wax luy dañ top sen da nga raw say maas inshallah rabbi ci sama yeen ak sama xol ak fuma ko tibbe sama karaama du may dóorantu nag du ma dóor damay wax muy am kulli min min al kanida señ neexa ngi ni ki yëkkati moni ma maa ko ba Touba daal di ko yóbbu Ndakaaru Njaay sampu ko fa mi ngi ni waaw kay kérok buñ ko tabaxé ñu xol xol lu ko mëna yëkëti yobbu mënuñu ko am keroog mako ko jël ci yanu ko ci sama bop kay na xam den gis ma yanu di dukkat di dem waye du dañi ay dañi jaxlé waye la ko yanu nekkul ci man la ko yanu mo ngi and ak man. señ bi ah. ban monument la nonu monument de la renaissance. Ah, ku ko fekke suñu xori job mi ci la. <laughs> ma ngi jéglu ci jéglu yu bari. yo ah, xori xori suma waxate dama sédel muy deug ndax yow lépp lu ma def dara umpule ci dëgg la neex kulli min janaati minal candidat waaw su ko defee rek euh, bu ma nuyoo ñëpp képp koo xam ne rek yaa ngi ci euh, ligne bi fi mu ne di nu diglu fi mu ne ba Ndakaaru ba Europe Océan tugal euh, Turki ñëpp fépp sa waay nekk rek waaye neex ñang moo nga téye rajo bi fi mu ne nii dañ ko tere saarte di ko diglu maa ngi leen di siyaar bu baax a baax mm. ok Euh, noonu lay demee sur la mer de bande fréquence 93.5 euh, Ngaye FM comme ni ma la koy waxee woon euh, neex ñaa moo doon sama invité noonu noonu la ñëwee ok bëggal ñi nga xam ñi ngi déglu couleur urbaine noonu nga dugg see ni nga dugg see mën nañu wax que ni neex na léegi dama bàyyi nga présenté wu ñi nga xam ni xamuñu neex ñaa xamuñu neex ñaa ñu wax ñu kan mooy neex ñaa jaar-jaaram ak neex ñaa ak comédie bi muy def yooyu yëpp am na ñoo xam ne xam naa bëgg nañ koo xam. Mm-hmm. waaw ya, jërëjëf lolou dina ci sawar tonto correction ndax eh, neex ñang mom mo ngi dekk njukki njoox fal waaw diggante njukki ak pekkes ak njox xam nañ koy neex ñang ak eh, li wër pekkes yépp waaw dekk yoyu jëmatil ba fi gatéñ ah jëm nonu far bot yoy yépp xam nañ neex ñang neex ñang day yëngu ci walum ar bëgg ko lool nak waaw ba sax euh, li ne ci man léeg-léeg damay wax samay la sax ñu jàpp ni man maa ngi ci di théâtre hmm. waaw euh, ma bëgg ko lool ci li ma ci dugalit lu ndaw la maanaam wàllum école la woon hmm. rek euh, directeur Fall maa ngi koy nuyu waaw di nuyu directeur Diouf moom mi nga xam ne moo ngi ci école alimentaire bu jukki pekkees hmm. waaw di nuyu ñu fa nekk ñëpp bàyyiwuma kenn waaw benn année la woon pour rek euh, mu wax ay élèves ni leen tey année bi yéen koy théâtre yéen koy théâtre ñoom ñu ni ñun safuñu xorom xamuñu nun koy théâtre mm. ñu fekk ma ci benn programme keroog maa ngi tàngal kafe mm. ci benn cant mm. ñu jógee école wàcc ay ngoon ñëw daal ni ma suñ monsieur daa bëgg ku jouer kii bi fësko bi ma ni leen ah man de mënuma joué ñu ne ma yow dong lañ fi xalaat ndax monsieur nee na boo duggee ci dëkk bi rek hmm. xool leen ku ngeen ci yaakaar rek mu ñëw neexalal leen ko hmm. ma def koy caaxaan ñoom ñu dëggal ko ba ma ñëwet ma toog di leen déglu hmm. ñu ni ma yaa joxe thème ma ni leen ah pour man bind ngeen seen thème. mais boobu boobu dafa fekk yow euh, euh, nit sax yaa ngi doon def théâtre wala wala wala wala comme ah, étant jeune tamit nan nan la fa demee. boobu fekkul may def théâtre sax mais. xoromu gi hmm. ba jataay bu ma toog rek waxtaan wa jolli nit ñi ree affaire yooyu hmm. ñoom looloo taxoon ban leen diggalee ni leen wut leen ku neex ci dëkk bi rek hmm. ñu ñëw daal di may demandé ba ma demee joué ko directeur ni ma chaque année yaa ma koy jouéel ba léegi nii ci laa dem ba former troupe tudde ko troupe théâtrale jàmm ji bu njukki waaw ok kon mën nañu wax que ni euh, tamit bu fekkente ni dañ remonté dans le temps Euh, neex ñaa ak euh, étude neex ñaa ak euh, Foscoy parce que mën nañu wax que ni mën nañ mën nañu wax que ni école tamit du question que ni njang njàng ba nga fay def yëpp parce que tamit culture daf cee bokk culture daf cee bokk lu mel ni Fosco gis nañ ko yooyu yëpp danaan dundal école mm-hmm. dina tax élève bi xelam daan gën a màcc ci ci ci yu bëri mm-hmm. mais léegi dañuy dem de plus en plus que ñu xool ko ni léegi dañ ko relégué second plan peut-être dañuy xaar ba école tëj ñu commencé def fosco yeeg yooyu alors que dafa dafa bokk ci li nga xam ni euh, day éveiller sensu euh, élève bi euh, culture culture dafa baax te yow yaa ngi nii ba nga nekk école ci ci nga yaa ngi doon boole étude ak ak ak ak théâtre mm-hmm. Mm-hmm. waaw comme li nga wax rek noonu lay demee am na solo li nga wax parce que ay temps da nga daan ñëw chaque une semaine wala deux semaines nga jàpp benn lu mën a bégal xale yi. Mm. pour ñu gën a kontaan ba gën a bàyyi xel. Mm. ci école bi na tey suñ waa école ñooy def tey théâtre nangam nangam. Mm. pour ñu sawarte ku nekk ni yaay tey damaa bëgg damaa bëgg a doon élève jàngi. ndax lan may nan élèves yi benn journée ngoon boo xam ni ku amul billet doo dugg ñu may élèves yi. kon yeneen jeunes yi ci des dañuy préparé wu pour bëgg dugg école. waaw te fi nii. ñoo ngi ci woon ci affaire yu mel noonu daaw pare woon nañ ko ci tournage ba woowoon directeur yu bari. pour mm-hmm. dem fa jouer ak ñoom seen école. Mm-hmm. mais daaw mujjul antu ndax dafa tombe woon ak koor gi. Mm-hmm. waaw ñu ni woon après koor gi mais ba tey doxul. kon ren ñoo ngi noonu ñoo ngi nii taxaw. ci répétition yi pour démarrer ak ñoom ci fësko yi. Mm-hmm. ak képp koo xam ni bëgg nga ko balaa sa sa di ñëw. Mm-hmm. ñu dem fa def ak yow yu baax. Mm-hmm. ok noonu lay demee comme ni mu leen ko wax woon neex ñaa euh, moo doon sama invité euh, ci euh, couleur urbaine mais gis naa que ni am na loo ñu indaaleel gis naa que ni si kaw table bi indaale nga lu mel loo indaale ni lii nu mu tudd nii. li li nga yor moom la naan tuq si ngalam guitare. bo gisé ki ma andal borom ñuulaay bu yi di biir yee. Hmm. nga xamni mom bokkum xaar mbay ma jaagale. señ bëgg job mom ñu tuddu señ bëgg job nga ni wa señ bëgg job ah. mom ci sa trouble la bokk. sama trouble la bokk waaw. ok non lay démé gis euh, na tam am sama kii ku ku nek né sama. ki moy xuri moy xuri job ñu ngi nuyu encore Mor Ngooñ mo nga ca Dakar mom eh, eh, instant bi day jaay ngooñ wala moom <laughs> loolu tur sam wala lan. Mor Ngooñ turum la dañ ko ko tuddé won ben 4 avril. Hmm. waaw daal di koy joué moom benn mu yor ay xar affaire yooyu noonu ak euh, ay yor benn goro bu lakk le daal xar euh, goro bi di xonte xar yi xont bu bon biir bi daw affaire yooyu waaw waaw ki ngeen di dégg nii mooy neex ñaa kon je crois que tey couleur urbaine euh, war naa neex képp ku bëgg a jokkook Teuf Connection mën nga composé 88 628 Euh, seize cinquante comme ni mu leen koy waxee woon sànq dafa indi ay conteneur euh, bagage euh, pour béggee pour béggal ñëpp ñi nga xam ñi ngi déglu couleur urbaine léegi ñu bàyyi ko ak instrument mi ñu xool la ñu jox si instrument bi alahalallah waa ma na waaw ajaa xaar mbay ma jaaga mooy wax noonu ñëwal ci xaar mbay ma jaaga Kaaru Allah malan kaaru moom malan yaaba ji talaale lale baa baaxu góor di mu doon bi jigéen sax jeex na aaye mbuubu jaa góor nekkul jigéen a koy tàng waaw Croc mm-hmm. li may jooy mooy fii tey. Mm-hmm. bu fekkoonte ne tele la. Mm-hmm. ba Sénégal njaay jàkkaarlook ñun. dinañ xam ne tey ngaay am na lu saf lu neex. waaw euh, sëñ Bëgg Jóob man li ma indi tey rajo ngaay yaakaar naa sax du xaj ci temps bi. dafa bari. gaa yi ku nekk am na loo loo fa bakkar feggoo pour man ko sànni auditeurs yi ñu koy enjoy ba dimanche incha allah. waaw kon su ko defee rek da ngay ñëw ñamal waa ngaay benn xama nun ko nu ko correction di waxee. waaw ca rek benn avant xama lan. gu avant gu wala ñi nga xam daal comme instant yi ñu ngi déglu couleur urbaine nga bëggal leen comme que yaay neex ñaa daal yaa doon sama invité. Mhm. ak ca na ko dal. Ah, waaw lii may wax nii moom yaakaar naa ni. Père Niang mi fekke na ko sëñ neex mhm. ak sëñ bëgg mhm. waaw fekke naa ko de heure bi daaw la woon sama maam ma nekk ak moom mhm. li may wax nii dëgg la de léegi bi ma nekkee ak moom waaw euh, am na am na ku nekk si ligne bi ñu jël ko allo waaw dem na kon euh, léegi bi ma nekkee ak sama maam sama maam daa yàgg bëgg di saraxe léegi Baay Faal bi heure bu xëyee rek ñëw taxaw ci buntu kër ni laa ilaaha illallah léegi sama maam daal di yëkkati lépp lu mu am rek. jox ko ñu jël auditeur boobu euh, nekk si ligne bi allo sëñ bi. waa ñu ngi lay ñu ngi lay dégg. waaw mën nga ñoo baaxee tur bi. Eh, waaw ok yaa ngi en direct yaa ngi en direct kan nga kan nga soxla woon si euh, kii artiste yi ki toog ni euh, ah. waaw xës waaw ñu ngi lay dégg ñu ngi lay dégg mën nga wax ñoom. waaw xës ñu ngi lay siyaare. nekk yëngu yi mbaam nga jàmm yow dimanche yaa ngi woon fii. waaw loolu leer na. waaw maa ngi nuyu lil wës mi sa wet. waaw waaw waaw. waaw Modou Faye maa ngi koy bége. waaw. etimeen. waaw saw lay lay. ak képp ku ne ci kër gi rek maa ngi leen di siyaar gis naa ni ngeen toogee nii maa ngi jàkkaarloog moom mais yow ni nga yebee ni nga yebee ni nga yebee célibataire yi moom bokkutul si euh, célibataire xës <laughs> dé dégg naa da nga doon ceetal weekend bi ah léegi kon moom moom bokkutoo ci loo boobu nga xam ni saa waay da leen di classe rek xës raw na raw na sinon sinon lépp jàmm <laughs> ma ne moom it du classe boppam ba pare xës moom jaanam wàcc na fi mu ne xanaa kay yeneen célibataire yi célibataire yi njaay jàmm ñaan yeeg ku ci mel ni Moodu Moodu Mbuub ak ñeneen ak ñeneen góor a góor a waaw ak bu faal bu dem leen takki maa ngi leen di nuyu en passage ñoo nga dakaar ñoom lay faal ñeneen ak ñeneen waxal gaa yi kontaan naa ah, waaw waaw bégal ma aada waaw ñëpp allah. incha allahu ah, ok. waaw. ok ñu koy bëggee ñu koy bëggee bu baax xës euh, doon na sama invité ci couleur urbaine euh, ba paase ok Forial léegi dañ lay bàyyi ba ba tey ñu konne waaw léegi bi nga xamee ni Baye Fall bi ñëw na. gaawal tuuti saf na maa léegi daan ni laa ilaaha illallah fekk jour booba daa fekk ñu sàcc alali maam yëpp. xam naa ku ni ku ku ku sëñ neex mii ñaanal moo fa jaar mm. mhm. léegi meer xool xool amul lu mu ko sarax lu dul ñeexum dama daa moo xam ne am na fa juróom-ñaar fukki fan mhm. xam ma wàññi mm. la léegi mhm. mu daal di ko koy jox Baay Faal bi maam yàgg na sarax am na ji te rus na ko koo ndax heure bu mu jox ko dara mm. mu ndax wane ne moom mi góor dëgg la léegi ba mu ko téeroon naan ko daal di dem deux jours trois jours maam gisu ko quatrième jours ba ca la ñëw au lieu mu jaar ci buddu kër bi tey ci ginnaaw kër gi la jaar di yër ca sàkket la mu taxaw naa ko waa Baye Fall doo ñëw jël sarax bi naa ma yéen kay mooy loolu xaw ma mooy loolu ci lu muy tekki ndeke moom lam daan si kër changé na ko ndax sama maam ma nga jaar ca ginnaaw te naan ko jàpp góor faal sol kom ñeex wooy biir bay daw faal xol bay jeex loolu bëgg daal da ngay daal di ñëw. waaw boo ñëwee rek man sama lépp day ànd ak question. Mhm. ma sànni ko auditeurs yi pour bu duggee man cee kii doxal. Mhm. waaw dama koy daal di feemu rek. waaw la nga lépp du war dama daal di formali. bii. ña nga ibaadu yi. kep hmm. kuy wut ku fidel waaw ku bëgg soxna hmm. takal kuy mur waaw waaw ndege dal la and sama coro moy sama sorti ma fi demon Dakar rek deug la bu neex lol waji hmm ñuy dox di dox bam yag ci marché bi koloban rek waaw suuf xam nga am nay toilette fofu non waaw waaw ñuy dox bam yag soxna ci ma bëgg dem euh, toilette hmm. ah maniko acca duggal nonu leg mu dem apa moy garde buntu buntu ki bi mu dem legi toilette tour ndox juróom la mm-hmm. legi mu dugg ci biir tour ndox ba génn waaw ko papa ji hmm jox ko hmm legi du ko jox juróom bam dem bam yàgg mu daal di hmm jël ñaar dëram tegal ko ci la ilaha pa bi ni ko deet ndaw si mu ne ko kii tour ndox juróom la mu ne ko déet papa ji du ma lekk àq mu ne ko fii def buri wi <laughs> papa ji nag xamul luy buri mu ne ko déet soxna si luy buri mu ne ko damaa sone ah, daa sone maa ah wa Ndakaaru moom ku ne xam na la fa ne tous les personnes c'est pas séparé c'est le même prix tout ça soixante-quinze francs saw juróom pour fukk loolu lan fay signé waa man sama lépp nag dama ci boole question kii ñetti soxna la yu rafet ba dee benn bi seen jëkkër mason la léegi ñoom danoo fiir jonge jonge ba nga ni ma lii lu mu doon léegi ngoon jot ñu sangu ba set puudaru maquillage teg seeni sées toog lal seenug basang léegi nag bi nga xamante ni jëkkër ji xëy na ba wàcc ba heure yi yooyu rek mu daldi di sonn ñëw bàyyi ci basang gi rekk daldi di der gi benn aw bi ni bërët daan ni ko ah dikk laak te xët yi ñaareel bi ni bërët tàccut ni ko eh laa ilaha illallah nu mi def ba du xët daa dagg les ñetteel bi ni bërët ni ko eh ndijaay xam nga lu ma lay xamal jógal ma lalal la nga tëddi bala ngaa puub léegi bu ngeen duggee dangeen may wax ñett ñi kan moo ci gën a joŋe ak kan moo ci gën a réew mm-hmm. ok euh, noonu lay demee ak euh, neex ñaa am na say vidéo yu ma jot a euh, seetaan ci YouTube gis naa que ni da nga yàpp célibataire yi. <laughs> wala wala yebal googu genre message la wala na la fa demee en plus tamit fekkee mën nga ñu indil benn extrait bu nga xam ni. Hmm. Hmm. ma mën nga ko jox. laa ilaaha illallaah hmm. ñooñu dama sawar ci ñoom lool. ndax booy xool li yàq réew mi. célibataire yi ci lan. waaw. kenn mënul leen a mën leen a tàgg ba doon tawte ndax da ngay gis célibataire boo xam day jaaxaan rek ndeysaan naan waaye kër bàyyi gee ka neex yaa ngay taal courant ba di taal ventilo ba boole koog weccet wu mu teg nga sàcc ko jaay ah kalaasug jëmbu saar gi noonu la ñuy def naan kër gee ka neex léeg-léeg nga gis koo xam ni ndeysaan de jeeg day dugg ci waañ liggéey ba sonn ñëw teg añ bi mu dugal ca loxom jóg ni bërit waaye xorom nga ko waay wala mu nit bàyyi leen jumbo mos na maa gane ji benn dëkk li may wax lu leer la mm-hmm. gis nga copain bi bi mu sukkee ci ndab li ndaw si jumbo ndab li mu daldi di tibb bi mu yëlëbee daandi ko waaye jumbo nga ko bi ma fepp ceeb bi dalee ci jëpp sama r bi dafa toj ma daanu jaaxaan deret ji sàng ma gars ni bërët ni ma waaye mbaa du loxoom dalaa laal ma ne ko fepp ceeb bi mu duy tax moo ma dal keroog mënuñu koo gëm mm-hmm. sérieux maanaam célibataire yi damaa bëgg ñu takk soxna ndax maa ngi ciy defi effort. Hmm. ndax fi mu ne boo xoolee njukki ga ma dëkk. Hmm. am naa cinq personnes xës mii ci la fi mu ne. Hmm. xës mii génn léegi. ak euh, Saaba Njaay ñu naan ko mu Njaay taximaan Dakar. Euh, ku ci mel ni Talla Sall. Sall apprenti. ñu jël ñu jël kooku nekk si ligne bi. Euh, dem na dem na ñu ko ne. Sall apprenti. waaw. ak euh, ñeneen ak ñeneen ñoo xam ni ca njukki man bi ñëwee daan ne ma neex sa wax ji am na solo kat ndax am na ñu takk fii fan yi mm-hmm. takk yi tegaloo ma ne aha kon naa jàpp ñeneen ñi ci des ndax célibataire bu dul wax ak ñoom dañu yàq dëkk bi mm-hmm. man fi may gis maa ngi ci première femme de gauche mm-hmm. waaw bëgg beneen nag daa mel ni daa mel ni da ngaa xam li nekk sama xel moo tax parce que euh, dama la naroon tooñ man la yow miy tooñ célibataire est-ce que euh, fas nga. <laughs> fas naa fas naa am naa deux gosses. Mm-hmm. am naa deux gosses. gosse bi bu taxawee fii taabal ji dina tolloog euh, def gi mbopp mm-hmm. bi dina tollook taabal ji ñu toog. Mm-hmm. waaw waaw léegi léegi li mu bëggoon xam mooy comme par exemple neex ñaa ak aar bi maanaam mm, ñaata comme bu doon jël sa carrière. di ko jël si temps mën nañu mën bu wax maanaam neex ñaa ñaataat la def ci aar bi. ba bi mu duggee ci aar bi euh, ba léegi am na lu mu ci am ba xam jot na jot na si réaliser dara daal. bi ma ci duggee léegi maanaam bu may xool war naa cee am ay huit ans. Mhm. ay neuf ans mais bi ma koy gën a taxaw dëgg-dëgg di ko dëggal di dugg YouTube. Mhm. di def ay vidéo gars di ko télécharger di ko seetaan di ma wax dollil boobaak léegi moom mën naa ni daaw ak ren la diire. Mhm. fi ne nii suñu sketch ñoo ngi daw ci réseau Pekes bi. Hmm. may sant sama sëriñ sëñ Daam Kan hmm. euh, ak Mbacke Ndoye ñoom ñoo koy jàllale. da ngeen am ab réalisateur wala instant bi comme troupe bi euh, est-ce que am ngeen réalisateur bu nga xam ni euh, yéen a ngi réaliser ay vidéo wala lan nan ngeen di réaliser seen vidéo. waaw par téléphone lan koy defee. Hmm. waaw par téléphone la def filmer pré monter yóbbu jox ko mu teg. parce que amagun am réalisateur boo xam ni day ñëw spécial jël pour dem monter. kasetu koor gi nga xam ni moom lañ jot a joué par caméra kenn nu ko doon euh, filmer fii la dëkk Ngaay Assane. Hmm. kii Maas Maas ah. ok mais comme par exemple am na ñeneen ñoo xam ne dañuy gis yenn réalisateurs yi euh, si le faut peut-être ñu fay mu jógee Dakar wala feneen ñëw journée tourné leen. après yéen ngeen fay ko bu réaliser seen kii tamit mu jox leen est-ce que tamit démarche yooyu yéen koy def wala benn euh, producteur mu ñoom produir la wala est-ce que yéen a ngi def démarche yi yéen a ngi def démarche yi. ñoo ngi def démarche yi mais xam nga rek yaa ma gën a xam. ñoo ngi wut connaissance di def ay démarche pour am ko mais ba tey mënuñu koo am am na suñu ay gars yoo. xam ne est-ce que yéen a ngi génn comme par exemple est-ce que du tamit euh, du li ngeen toog pekkee sax est-ce que yéen a ngi wut ay relation feneen ak feneen. relation bi ñoo ngi koy ut mais moom déplacement bi bokku ci quoi par call la. Hmm. xam nga. comme sa benn copain comme yow par exemple tey. Hmm. nga nga xam kenn jox ma contact am ni ma am naa ci moom yaakaar. pour hmm. mu jàppale la. Hmm. nga def ak moom contact wax ak moom ngeen waxtaan. mais man bëgguma tamit ñu boole la ak nit nga koy sëf prection bi. di ko tànc quoi. comme li ñuy wax tànc ci miir bi. ndax nit xamoo ba xam moom fa mu nekk lan lan ko placé moo ko yilif. pour man la cee jàppale dëgg-dëgg wala daa am comme ciy xaar wala. koy dox ndigal. ok léegi léegi comme par exemple képp ku nga xam ne bëgg na euh, jàppale euh, neex ñaa ci euh, li muy liggéey nan lay def ba contacter ko pour pour mën a jokkoo ak yow. waaw ku bëgg a jokkoo neex ñang pour jàppale ko da ngay dugg ci 77 863 84 29. wala nga def 76 678 25 32. waaw ñuy tàllal ñëpp loxo képp koo xam ne rek aar bi ñor na la parce man. xalé yi ngaay dama leena dama leena a fan mhm. parce que dañoo bëgg culture mhm. waaw damay damay gis artiste da fi génne théâtre kat ah mhm. kat animateur mais fee pekkes bo démé tay mëno fa génne artiste loolu lan mako lan mako waral lan la ba xam euh, loolu euh, lan lan ma waral loolu loolu liko waral lu bari ci jeunesse bi la quoi ndax da ngay gis ko xamni day complexé def tay théâtre ñu ni diwa ngey di théâtre fait tey gis nga ku complexe tey tey boo demoon pekes di def micro xam nga nu koy waxee waaw boo dëpp micro day daw mm. amul fitu sax wax ci micro bi mm. waaw ci dama defe ni dëkk jeunesse bi ñoo ko war a taxaw pour defar ko quoi mm. waaw comme yooyu ñu ciy daw man bu ma la rombee euh, yow sa bu ma théâtre mënoo maa teg théâtre kat danga may teg bandi bu salte loolu mooy sama style mais bu ma solee bolog bi da ngay gis ku i kon kii day théâtre ñu ni waaw waa ji de bett na ma man noonu laay dundee mais du question damay sol sama bolog chaque jour di kii nii léegi en dehors en dehors euh, théâtre bi ngay def euh, en euh, am na ku nekk si ligne jël ko allo allo waaw waaw yaa ngi en direct ci Ngaye FM waaw yow tam ñu ngi lay delloo ziar bu wér mën nga ñu baaxee tur bi waaw Modou Mboub la Modou Mboub waaw ok sa gaay ñu ngi lay dégg waaw Modou Mboub borom jaay jàmm ñaan maa ngi lay siyaar maa ngi lay tudd léegi rek waaw nga dégg maa koy dégg maa ngi doon émission bi nii yow ak salibataire célibataire njaay jàmm ñaan ñi waaw sama gaay góorgóorlu leen def effort naka yitte yi waaw sant borom taaru wéet nam la waaw kontaan naa ci yow de kontaan nañ ci émission bi trop macha allah ah. <laughs> waaw foo nekk ni yaa ngi njaay. maa ngi nii sama atelier ma ko waaw bëggeel ma gars yi nga toogal ñëpp ne leen neex a ngi leen di bëggee. waaye kontaan. waaw waaw kontaan naa téye leen ko foofu rek fi la 93 point 5. donc su ñu waaw waaw. gaa yi ñoo ngi lay nuyu ñoom bëgg Jóob xuri Jóob ñi ma toogal. Ah, waaw Mour Baye Fall ñoo ngi lay ziar wér wér de. waaw ah, bëgg nañ bëgg nañ de. Ah, waaw ñoo rek. Hmm. waa jaajëf kooku dama koy ziar di ko bëggee lu baax a baax. Hmm. parce que célibataires yi maa ngi wax ci ñoom. Hmm. waaye su may xool ci côté dafay mel ni li may wax ci ñoom da leen a neex. da ciy ko dañ ciy kontaan lool. parce que dañ koy partager par seen parce que tamit isil isil bi ngay def nii euh, dama gis que ni gars yu bëri fi mu ne instant bi loolu la def dañuy classe gars rek mais ni ñuy classé tamit des fois dañuy kii ba sax <laughs> dañ si teg ay saaga expliqué affaire dama mm. noonu euh, loolu isil la wala dan euh, la fa demee. pour comme isil bi ngeen isil isil boobu ñu bari dañ koy def comme naan célibataire bu leen lii rek bu leen laag bu leen ah, yeneen ak yeneen wala bokk. man mom mm. man mom samay euh, euh ki célibataires yi mm. du duma ci bolé yu bizarre yoyu quoi mm. parce que dam dama leen a jàppee comme sama ay mag parce que bu may xol ñi may waxal ñepp ñoo mag sama ay grand lay waxal sama ay ndijaay ah sama ay xarit yoo xamante ni si man leer na man ne ñoo ma mag parfois nit day lire vidéo bi da ne ya waaye diw mi ngay waxal nag da rep fekk diw moomu lire na ko ba félicité ma kontaan ci affaire bi quoi. Mhm. waaw pour di dugal vidéo ni sax di leen classe di saaga wala def leen ni mën naa ni daal di leen ci def yi affaire yooyu mais mhm. saaga leen ak yooyu noonu moom. Mhm. non non. ok kon dafa euh, leer neex ñaa euh, day def communication mais en même temps si comédie bi muy def euh, kàllaamaam ay kàllaama yu teggi na la liñ liñ liñ jagleloon si waxtu. dafa xaw a kii maanaam mën nañu wax que ni dañoo yëg si càpp cëppandaw ba léegi euh, juste tamit bu fekkee am na message bu nga xam ne da nga koy lancé ñi nga xam ne sànq ñu ngi déglu euh, couleur urbaine ban bon message booy jàllale ak tam bu fekkente ne am na tamit lu nga xam ne bëgg nga ko wax ak autorité yi nga xam ne tam ñu ngi lay dégg wala mu am ñooy sollicité nga profité nga wax ak ñoom euh, ñu tàggatoo tamit ak tamit lu nga xam ne tamit yaa ngi koy baaxee yi nga xam ne ñu ngi déglu couleur urbaine waaw comme ni nga ko waxee rek damay sant ñëpp képp koo xamante ni si rek yaa ngi ci commune u ngaay ak li ko wër parce que boo gisee sama ay vidéo yu bari dama ciy bind neex ñang jukki Pekes ngaay mexe pour ñu xam ni maa ngi ci zone bi quoi waaw di leen waaw ñu jël kooku alo waaw ñu ngi lay delloo ziar bu wér sant alhamdulilah. waaw ñu ngi sant mën nga ñoo baaxee tur bi. waaw ok euh, sa gaay ñu ngi lay dégg mën nga wax ak ñoom. waaw waaw ziar naa la. waaw kooku kan la sëñ Mbacke. waaw waram ngaay maa ngi sa dëkk tey. maa ngi leen di béggee yéen waa Seras gépp xale yooyu ñoo tudd seen bopp séeraas. ñu ngi lay ñu ngi lay reede bu muy dugg mi ngi lay reede xaw na wuyu <laughs> waaw kooku mooy sëñ Mbàkke Jakarta mu ngi dëkk ngaay côté bële booy dem Louga. waaw waa séeraas siyaar naa ñëpp. Moussa Gueye Moussa demal takki jabar Moussa. góorgóorlu leen wut soxna nag waaw. piis. wiis rek. man na waaye nanguta liggéey. mi ngi si ligne ba léegi de. wiis boo for. ñëwal tàllal ko ko mu wax la fi muy ne ci moteur bi. jaajëf sëñ Mbacke maa ngi koy siyaar moom ak waa Seras yëpp fu ngeen toogee latiir Fall ñoom seen place ñoo jàkkaarloo maa ngi leen di siyaar bu baax a baax di. allo. waaw. allo. waaw yaa ngi en direct ci couleur urbaine mën nga ñu baaxee tur bi. man euh, waaw sa gars yi ñu ngi lay dégg mën nga wax ak ñoom nga wax ak euh, siyaar naa la saw man la ah, maa ngi lay siyaar kooku grand frère u xës la. Ah, maa xës la day def rab moom moo ngi nekk Dakar. Mhm. waaw maa ngi lay siyaar bu wér. waaye waaw ñoo la gën a bég bu baax a baax a baax. affaire waaw waaw. yàlla baax na yàlla baax na. waaw. yow mbaa bokkoon célibataire yi rek. waaw moom célibataire la de. man maa am de. ne célibataire mag nga de. célibataire nga célibataire nga. waaw célibataire mag nga bëgg a bañ. looy bañ ñëwit nag. ah nangul waay. Eh, waaw waaw maa ngi béggee waa Njoox yëpp ma kenn. ok maire yeeg paa yeeg ñëpp chef de village. ok sama copain Abdou Fall maa ngi koy siyaar. jéem a naaj oh, waay. ok euh, noonu lay demee ci couleur urbaine euh, waxtu bi ñu jagloon dafi jeex tàkk temps bi daf ñu xoj léegi euh, ñu bàyyi leen ngeen tàggatoo. bàyyi leen ngeen ah, tàggatoo balay balay loolu. waaw mën lañ mën na doon kii bu nga xam ne moom la ñu tàggatoo tamit. balay loolu balay loolu amoon nañ benn liste remerciement fii. waaw waaw parce que boo gisee am nañu jàpp ci combat bi ñu baree bari. waaw waaw. ñu ci mel ni xadifaal Khata. xatta. waaw borom gàlle bi kooku amunu fayam. fa la ni tourné. Mhm. Khadim Touré. Khadim Touré waaw. waaw waa ki gépp ñu ngi di ziar monsieur Diouf directeur Pekes. waaw directeur école njukki élémentaire. Mhm. monsieur Madian. Daour Gueye Baysal Ndaw borom photocopieuse bi Non, ah, monsieur monsieur le maire Djibril Mbaye waaw Djibril sa waaya Awa Sow Awa Sow di ko ñaanal vraiment waaw dafa xaw a jagat fa jagati fan yi yàlla yëkkati ko incha allah waaw waaw waa njukki yëpp di leen remercier Mas Fall ah Modou Faye Ndiox Daouda Diop Mbaye Mbaye Ndom Fall ah di remercier Mbaye Mbaye mm-hmm. waa Ndiox Fall gi yëpp ah Damkan, Kane chef de village njukki Pekes Njuux Amdi juuf hmm? hmm. Mor Ngooñ sëñ Modou Sall. Mbaye Diop animateur. ah waa waa université Ablaye Fall Maam Cheikh Diop ah Khadim Gueye. Hmm. Modou Fall. bëgg Pekes. bëggoo bëggoo Pekes. ñoo ngi remercier ñëpp ah suñu limee dañuy juum. waaw ku dégg sutur tamit xam nañu encore waa waa miroir bu pekkees mm-hmm. ñoom it dañuy def aar mm-hmm. bëgg naa nga woo leen ñu ñam ñoom it dijee dijee waaw ñooñu war nga leen kii ñoom it ay artistes lañ comme ñun waaw kon bu ko defee rek dama leen di expliquer tuuti sama histoire mm-hmm. jabar jon ma mayoon fële ca euh, fële dëkk ba nuñ koy waxeeti diggante bonjeeg ñii bi keroog bëgg mi leen jox avance bi da koo delloo keroog maa ngi posé bëri ñaar fukki kilo juróom caay ji may sol ñaar fukki mètre la ak ñett <laughs> may bëngeel di woy kérok bama nuyo nuyoo soos diggante njibi ak ak ak bonje ñu ne ah ki dé atan na ndaw si ndaw sa nga tol ni guy gu kuy guy gu dar wén ya tol ni baak bama yexé mu yor lal buy mangi taan ma ñëw tuddé ndëfee naay bama ñëwé tok nis timis jot mu daal di tiq ñaari ginaar ray tek daal di togg tek ci ci ni man di jaay kaay mu ñëw mu ne ma wàccal ma wàcc mu ne ma reer dama ne tell ramatam bi ñaan gi mu jóg taxaw ma ni lëkkaay ba ñu reet jàpp ca ngooj ga ni ko fëlit tëpp pooj ba ni ko mu xeet booleeg tibub ceeb dóor mu jàll ma jël potum dóor neeti waat tell ndul futt gi mu ni bër bër ma rëkk ndunkuruut gi mu dellu ci ndab lu ma ni njuupala ñiib xam ngeen njuupale mooy foofu yox-yox biy nekk piccub yox-yox ma tibb booleeg tibub ceeb dóor mu jàll ma ni ko kaay jël bool bi mu ñëw jël bool bi daal di daw bëgg a jëndi boisson ma ni ko looy jëndi mu ni boisson ma ni ko keesug bii ñë ma gënal boobab sulaar laar laa bu mag <laughs> keesug biir semaine laa koy dóor semaine bis bi ci surne bi damay ndékkeew sëll di añëw sëll di reerew sëll booba ponkal laa bi nu ñëwee keroog ci guddi gi keroog juróom benni ànd cim néeg keroog laa ko mus a gis koñ ju ne mu xëpp fa dànkob cuuraay néeg bi saxaar ba kenn gisatul kenn mu daal di ni yóot sama tànk bi ma defee nu la lay def mu jël dànkub cuuraay xëpp ma ko ciy taat keroog laa xam goowee ciy taat a neex. ok euh, noonu lay deme doyul nag waaye xam naa temps bi xoj nanu DJ maa ngi remercier faat laa la faal faat laa la xam naa ma ko faatee te dina ma rey. Hmm. waaw borom ndékki ak cere ju neex ji. Hmm. bëgg naa lu baree bare sama la jël. Hmm. bàyyiwul kenn nag bàyyiwul kenn noonu lay noonu lay demee ñu koy euh, bëggee. Euh, di ko euh, ziar ok fëriyel fa neex ñaa ngeen doon am ci mhm. euh, couleur urbaine ok ñu tàggatoo mhm. ba beneen yoon di béggee képp nga xam ni yaa ngi doon déglu couleur urbaine ak Mamel Teuf connection mhm. c'est tous les c'est tous les dimanches à partir de 15h jusqu'à 16 comme ni nga ko waxee li duuf yëpp xajul si cin bi noonu lay demee dañ koy bàyyi ba beneen yoon anyway ci yeneen kii yeneen émission ñu gën a yaatal ñu leen di béggee tam seen disponibilité comme ni mu leen ko waxee wàllum hip hop rek la wàllum aar la avec un grand ta ok di béggee euh, El Hadj mi nga xam ni euh, moo nekk ci euh, cabine technique bi mm-hmm. ak képp ku nga xam ni yaa ngi déglu couleur urbaine ok I'm out ok di sant sama sëriñ bàcc jenn sëñ pëkk ndooy maa ngi leen di siyaar bu wér a wér moo nga Thiès Cheikh Mbeng ak Cheikh Thiam gaa yëpp ma kenn ku lim juum nag temps bi moo nu xoj moo tax lépp mënul mat waaye ñoo ngi jégalu bu wér a wér wér képp ku déggul sa tur rek waaw ñoo ngi tuub di wér thank Guy Fam, Legacy Pretty Fam. Yeah, hip hop generation forever. Tough connection, tough connection. Hey, hey, hey, my man connect. Hey, hey, my man tough connection. Calco Pop, Bike Pop, Catherine Trace Point. Thank Guy Fam. Legacy Fam. Yeah, hip hop.